ñett groupement yu nga xam ne ñu ngi leen di jàppale ci Sénégal fii Dionewar Ndianda Fadial joyin Ndiaganiao Nioro dakaar Yeumbeul Grand Dakar euh, c'est suivant des programmes boo demee ci village bi ñoom liñ soxla en terme de euh, microfinance loolu lañ leen di jàppale après nga dem beneen dëkk ñu soxla leneen nga jàppale leen am na ñoo xam ne ci maraîchage lañ nekk te ci maraîchage lañ leen di jàppale donc dëkk boo dem rek par rapport ak spécificité am ñu accompagner ko ci loolu par exemple boo demee dëkk bu mel ni Daara y une organisation qui organisation boo xam ne ay équidés lay lay lijjanti maanaam fas ak mbaam am organisation femmes yoo xam ne ci loolu la ñuy la ñuy yëngatu donc dañ leen jàppale ci ay encadrement technique am na ñoo xam ne dañ leen jàppale ci ay encadrement mobilisation communautaire pour créer ay festival yoo xam ne dina am ay thèmes te développement yoo xam dina mën a def ay plaidoyer yu mën a jël autorités yi boole leen ci liggéey bi ñuy liggéey pour mobiliser leen ci activité yooyu. waaw gratuitement la sax ba tey c'est-à-dire que li mu la wax ni système la c'est juste que femmes yi dañ leen laaj benn contribution de mille francs par membre at apport at bu jot pour que femme bu ci nekk mën a dugal loxoom ci li ñuy def mais loolu terewul que ne si association bi am na femmes yoo xam ne ci encadrement bi leen di encadrer encadré nañ leen ba am. Euh, euh, euh, maanaam structure d'encadrement état bi yoo xam ne financé nañ leen ay 1 million ay 1 million 2 millions ay 1 million 500 critères yi mooy boo nekkee organisation nga constituer nga ñàkk a constituer nga nekk ay jigéen ñoo xam ne bëgg nga liggéey da ngay def demande adressé ko présidente bi wala nga adressé ma ko en tant que coordinateur bu ma ko jotee man je transmets la ma transmettre demande bi au niveau de Genève ñoom ñu xool bu ñu validé ñu mën a ñu mën a ñu mën la appuyer waaw li ñu ci mën a def ba bilan bi bari na parce que de mille 2004 ba léegi wala ba année 2000 ba léegi mun naa ne moom chaque année wala chaque deux ans mu ñëw te chaque deux ans bu ñëwee au moins dinañ wër association yëpp ku ci nekk au moins mu jël 200000 ba cinq cent 500000 teg ko sa loxo loolu 2004 ba deux mille ba ba 2022 bi mu ngi koy def euh, association buñ mujjee financé yaakaar naa ne. ñoom ñu ngi fii 500000 lañ leen jox yàggul donc loolu ci wàllu financement la léegi boo jëlee ci wàllu encadrement boo demee fu mel ni grande Dakar wala nga dem fu mel ni Yëmbal dañ fa déroulé woon benn programme de lutte contre les violences urbaines boo xam ne dafa impliqué jigéen ñi ci accompagnement table mbedd maanaam ñiy jaay maire yi jaay ci buntu kër yi di leen di financer mais di leen jàppale di leen jox marchandise ñu koy teg di ci liggéey bés bu nekk ñu am luñ ci fay. loolu benn la boo demee milieu bu mel ni euh, fii comme mbaaw ni am na programme boo xam ne programme résilience écologique la boo xam ne dafay am protection environnement bi muy bi ñuy toftal ci biir loolu mbalit beeg lépp ñu koy jël di ko transformer di ci defar ay banc di ci defar ay euh, milieu de socialisation maanaam fu xale yi mën a di fréquenter am yoo xam ne aussi ay élevage sax dafay am ay kanaar ak yooyu quoi donc bu nekk ay milieu yoo xam ne Euh, dafay am jeexantal ci askan bi parce que dafa nekk gox yoo xam ne parfois duñ am sax euh, fu xale yi foowee donc loolu dañ ko jël insérer ko ci beneen programme boo demee fu mel ni ñooro dañ di dégg festival Malabar Family festival boobu pratiquement association bi moo accompagner festival boobu ba mu taxaw donc boo demee comme ni ma la waxee daara euh, actuellement il y a même une radio installée Ndoumbelane FM qui a été boostée par l'association sur le plan euh, technique accompagnement technique boobu e association yooyu yëpp muy lépp lu ñu soxla ci këyit dañu leen koy utal lépp lu ñu soxla ci encadrement dañ leen koy kii ba ñoom ñu gis seen bopp donc loolu ci ñaari côté boo demee aussi am na ay daara yu ñuy appuyer am na boo demee Mbour am na daara bu ñu fa appuyer boo demee Géejawaay am na daara yu nga xam ne ñu ngi foofu yoo xam ne ñu ngi leen di appuyer euh, de temps en temps ñu leen di jàppale bu mooyee loolu aussi am na étudiants yu bari parce que man mii samay étude ci liñ may fay ci association bi laa ko fayee maanaam daara ba master donc euh, euh, association bi am na ñeneen ñoo xam ne peut-être bu ngeen fi toogoon tuuti dinañ génnee seen bopp wax euh, parce que dina am ay témoignages après ay étudiants yoo xam ne de de de première année ba master dañ la ko fayal ñu ngi fii Sénégal am na ñoo xam ne aussi ba tey jii nii ay étudiants la yoo xam ne seen seen ticket association bi moo ko yor ba pare. Covid bi passé rek pratiquement euh, plus de euh, cinquante personnes yu nga xam ne euh, si situation yi difficile lañu nekkoon ci confinement bi dañoo jël plus de trois millions teg ko di leen ko jox ni di leen ko accompagner ay famille yooyu. À la suite d'une voix qui m'a dit de venir au Sénégal alors je suis venue par cette occasion-là j'ai sauvé la vie d'un jeune homme sénégalais et après j'ai rencontré l'abbé Joseph qui m'a dit la précarité des femmes dans les villages sénégalais. Alors euh, j'ai décidé de créer une association qui pourrait les aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'association Hélénade Allo la Terre avec l'aide de chez Remarsard, je ne sais pas où il est. Et je les aide à créer des microcrédits. Et avec ça, elles peuvent euh, travailler. elles déroulent des activités. Euh, je n'impose rien dans les activités, je trouve qu'autrement, on leur enlève leur créativité. Alors je veux qu'elles sachent créer elles-mêmes ce qu'elles ont envie de faire. La plupart du temps, de l'argent, je leur donne des moyens financiers, mais des fois, elles ont fait de la teinture, elles, font plusieurs choses avec ce que je leur donne. la pauvreté. Pour lutter contre la pauvreté, puis leur donner la possibilité euh, de faire quelque chose, justement.

Oui, des produits céréaliers, puis aussi pour des jus. Elles font des jus, elles font des. avec qu'elles cultivent. Certaines cultivent, d'autres le transforment. en fait, j'ai jamais rien attendu de personne. Je suis allée une fois, on m'avait amenée au gouvernement une fois, vers le ministère de la Famille, je crois. Oui. Mais on me, demandait plutôt des choses comme on offrait. Alors, euh, je me suis dit que ça allait très bien toute seule, j'économise de l'argent et je viens aider. Alors jusqu'à maintenant, c'était gratuitement, mais comme j'ai failli mourir il n'y a pas très longtemps, et que je me suis dit que si je voulais que mon association continue, il fallait que je trouve un système. Non, c'est pas maintenant, mais elle aurait des difficultés si je meurs. Alors, euh, le système, c'est chaque femme doit cotiser 2000 CFA par an pour remettre dans le fonds de l'association et après c'est redistribué chaque année. Et comme ça, tant que ça, ça fonctionnera, ça peut fonctionner 100 ans. Oui, c'est pour permettre du financement. Euh, tout le... Oui, alors ça, c'est aux femmes qu'il faut poser cette question-là. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans les villages où, où, où il y a eu l'association. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. Et il y a, euh, je vous donne juste, je juste euh, à, Diondoy, avant le Covid, j'étais venue, elles les femmes m'ont dit Tu as vu comme on est jolie J'ai dit Mais vous êtes toujours jolie. Elle me dit Non, mais regarde, maintenant, on, avec euh, les, ce que tu nous as alloué, on arrive à avoir plus de temps pour nous et on peut Avant, on avait le temps de s'occuper que des choses, tandis que maintenant, on peut s'occuper aussi un peu de nous. di yëngu ci jaayum ganaar aussi ci la ñuy dox jàppale nañu bu baax ñu gis ci suñu bopp parce que ñun jigéen ñi dañoo amoon problème mu jënd produit par exemple bu produit yu ñëwoon dañu ko doon lebal bu ñu ko lebalee bu ko jaayee bu ñu versee duñ ci am dara mais grace à Allô la Terre ñoom indil nañu financement 500000 ñu ciy liggéey léegi ñun kenn dootuñu lebal produit dañuy jënd di versé te ku mel ni monsieur Cheikh Omar jàppale ñu si tey jii liggéey nañ ñun ba suñu financement duggaat na ba ñuy leplewaat suñu biir ku nekk cinquante mille ngay liggéey te loolu c'est grace à Allô la Terre ñu ngi remercier madame bu baax a baax ndax gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax fukki nit ak juróom ñoo nga xamante ne ñu ngi ànd di liggéey ñuy financé si loolu financement bi di daw di ñëw ba léegi euh, gis nañ baax a baax tey jii lii moo ñu manqué ñun sénégalais yi ñun jigéen ñi jigéenu jàmbaar yi ñoo fi nekk jigéenu fakk fakkatal yi ñoo fi nekk bëgg liggéey mais xamuñu fan la ñuy jaar parce que Sénégal boo politikul doo dem ñun gëmuñu politique suñu doole lañ yor di liggéey tey madame Daniel mii bu doon day def dafay présenté présidentielle ñun moom la ñu votel parce moo ñu taxaw moo ñu jàppale gisuñu kenn ku ñu taxaw di financement ñun suñu village bi ñu dëkk amuñu ndox kër Medoune Sow amuñu courant amuñu yoon bi ñu amee courant léegi matagul 6 mois amuñu ndox tey jii ñu ngi fa suñu ay produits yoo xamante ne tey mënuñu ko jaay parce que yoon moo fa amul ñu ngi bëgg a bay mais amuñu ndox suñu teen maa nga nee ba tey ñun bu fekkente ne li ñuy gën a demandé ku ñu dimbali mooy ñu am ndox parce que ndox moo tax ñu mën a bay ñu ngi foofu ak ay terres yoo xamante ne ñun ñoo ko moom nuulee les femmes mais amuñu ndox amuñu yoon tey madame Daniel mii rek moo ñu jàppale ci financement fekk ñu ba foofu sur place 60 ans ñu ngi fa dëkk gisuñu maire gisuñu kenn donc ñun moom mooy suñu présidente ah moom lañu gëm parce que moo ñu taxawu. xam ni bor day metti waaye bi Seeko ànd seeg Daniel ñëw foofu di liggéey ak ñun am nañ ci koom-koom boo xam ne yokk nañu yeewute boo xam ne ak yokkute boo xam ne moo tax ñu gën koo topp ba léegi ñu ngi liggéey ak moom te amuñ ci jafe-jafe te sonal ñu ci damit bëgg nañ mu yaatu sax te yaatu na sax parce que bu ñëwee day dem ba ci jeunes yi dem ba ci école yi xale yi xam ne ñuy liggéey ndax jaboot buy liggéey na koy doomam xam ak waa këram waaw am nañ ci koom-koom bu baax moo tax sax mu jar mu dagg dugg oto dugg gaal fi ñuy génnee Cheikh Omar xam na ko ñi nga gis ñu def nii dañuy paañ koo ci gis mu yëngal musóoram rek mu ci géej gi dañuy jël gaal paañale suñu bopp joowal suñu bopp ñëw indi paañ bi ak yoxos bi teg ko ci tefes bi seexu ñëw di ko gis ak dañeen am nañ fa jafe-jafe boo xam ne mooy maanaam booy traversé pour dem jëfeer dañ ci am problème yi gaal parce que gaal gi amuñ ku ñu ciy yóbbu bugg nañ ku ñu jàppe ci gaal gu ñuy yóbbu pour bu ñuy dem jëfeer waaw ñu am oto boo xam ne bu ñu amee programme bu ñu war a génn dañ ciy dem loolu am nañ ci jafe-jafe bu baax